fekk fi kàngam fekk fi borom xam-xam boo xamante ne bii macha allah moom itam euh, euh, bi bàyyi la bu ñu ràññee boo xamante ne bii yàgg naa faj aajo ci réew mi ñu koy wax El Hadj Abdoulaye Thiam maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog mbokku internet du Setsima TV. alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin alhamdulilahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun walhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi huddatil muhtadin haq qadrihi wa miqdaaril asim nuayikum jamian wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, jërëjëf bu ñu waxee El Hadj Abdoulaye Thiam El Hadj Abdoulaye ñu bëri euh, jàpp ne sax euh, tey jile moom itam dafa doon sëriñ boo xamante ne bi macha allah itam dafa fees dell ci waa kër Maam Baye est-ce que mën nañu retracer ci lu ndaw kan mooy El Hadj Abdoulaye waaw El Hadj Abdoulaye benn jaamu yàlla la boo xam ne nii yàlla mi ngi ko dëkkale ci Saalum. Mhm. waajuram tudd El Hadji Mouhamed Diallo Thiam. Mhm. nekk ci sët ci Massamba Thiam mu mhm. mag mi ngeen di dégg. kooku mooy sunu waajur. El Hadji Abdoulaye Thiam nag euh, nekk nit koo xam ne nii ci alquran la doon yëngatu. alquran nag boo déggee ñi la ñu la doon yëngatu mooy dugal nañ ci ja dugal nañ ko ci daara mu jàng alquran. ba yàlla def ko mu xefsu ko mm-hmm. yàlla dimbali ko it mécceem alquran la amee mooy jàngale alquran mm-hmm. ba yàlla dimbali ko mu nekk ci mécc mi nga xam ne nii ci la baayam nekkoon comme lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al waladu sirul abi mm-hmm. doom baayam la te ku nekk ci mécc mi sa baay nekkoon kooku wàcc nga d'accord alors euh, yow euh, da ngay jàngale alxuraan loolu mooy sa liggéey euh, tey jilee ñu gis ne fii ci Sénégal dafa bëri ñuy seet di seetee ay layu ñuy petaaw te yéen jàngalekat alxuraan yi ngeen wax ne seet dafa xaraam waaye yow ngay listixaar loo xamante ne bii dafa dagan naam listixaar naka lay demee. waaw xam nga yàlla daf ñee wax nañu. Hmm. yaa ayyuha allazina amanu tanibu kasiran min azanni hmm. inna baada zanni ismun hmm. am na beneen aaya bu yàlla di wax naan innamal xamru wal maysir wal anzaabu wal azlaamu riscun min amili seytaani fajtanibu maanaam loolu tudd na ci ay ay sàngara ak yoote ak tànk si nganaar ak yu demee ni yooyu noonu yëpp yàlla nee na dafa bokk ci jëfi seytaane hmm. nañ ko teet kooku wax yàlla la te yonent bi sallallahu alayhi wax nañu ne hmm. ci wàllu pettaaw wala yeneen yu demee ni noonu hmm. képp koo xam ne ni jaamukatab yàlla nga sax waroo koo laal waroo koo jege. alors pourquoi euh, ngay seet yow kon. waaw listixaar yonent bi sa alayhi wa sallam moo wax ne. du hmm. duhut ne listixaar kenn ku nekk boo ko mënee sax mën nga koo defal sa bopp. d'accord waaye nag danañ koy defal nit. ki nga xam ne ni mënu koo defal boppam mm-hmm. bu ñu ko santee dana ñuy jaar ci li nga xam ne ni moom la ñuy yonent bi digal mm-hmm. ñu defal ko ko soo listixaaree nit mën nga xam ndax dina am jëkkër ci at mi mën nga xam ndax kañ lay am jëkkër mën nga xam itam bu faree jot xaalis ay mbiram di ko ko euh, xoolal waaw loolu yëpp listixaar mën na koo wane waaye il faut nga xam elmu nujum mm-hmm. elmu nujum moom mooy raxsu lasraar te it dafa nekk loo xam ne su ko nit ki xamee rek dafay xam lépp ci la nit ki xam ban waxtu la nit ki war a uti dara pour yoonam neex mu baax ci moom ci la nit ki war a xam ne kii bu génnee heure bi du baax ci moom loolu ci xel mu nujum rek ci nga ko mën a xamee waaye listixaar it nag moo lay wan ne la jabar ji war nga koo takk baax na ci yow wala jabar ji waroo koo takk baaxut ci yow wala kër gi am na gaaf wala oto bi nangam wala yoon wi nangam loolu listixaar rek moo la ko mën a wan d'accord te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ko digal ñi di ko def te yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu ne man tamaka man tamasaka bi sunnati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam daqal aljanna hmm. képp ku jàpp sama sunna si rek da nga dugg aljanna ñaar nag mooy nekk fa man saa afal yuhmin wa man saa afal yakfur hmm. maanaam nit ki su ko neexee mën naa topp li ko yonantu bi digal hmm. ci lu baax maanaam mu def ko am ci aw yiw su ko neexee it ba tey yombalal nañ ko ko ndax la diina lakum diinukum waliya nii mu seet lu ko neex mu topp ko su ko defee lañ ca wax ci ay ay ay mbugal. Hmm. wala ci ay leneen su boobaa it dana dajee ak moom. alors ki ngay seetal à distance maanaam ki ngay defal listixaar euh, diir bi ci ñaata fan lay toll donte yéen ñaar nekkoo leen parce que moom à distance la ci téléphone lay doon. ci téléphone lay doon. am na ci loo xam ne duy yàgg comme nit ki su fekkee dafa dugal tey léegi na ma damaa bëgg nga seetal ma. Hmm. su gënee guddi. Hmm. su fekkee dafa gën a guddi. listixaar laa koy def ba bët set ma wax ak moom su fekkee comme heure bii la nag moom mm. am nañ ci beneen yoon bu ñuy jaar boo xam ne nii ci wàllu ilmu nujum ci lañ koy jaar ba mën a génnee ay saraxam mën a génnee ay ngantam mën a génnee loo nga xam ne nii maanaam mooy aw yoonam d' accord cest kon heure bu ñu la euh, woowee Cheikh Abdoulaye mën nga koo defal listixaar. mën nañ ko defal listixaar waaw. voilà mi ngi noonu euh, Cheikh Abdoulaye euh, Thiam laa dalal mbokk yi nga xamante ne bi bokk na ci ñi nga xamante ne bi ay kàngam lañu ci réew mi di jàngalekatu alxuraan waaye itam nekk nit koo xamante ne bi mën nañu wax ni moo mën ci Sénégal ci wàllu seet parce que itam ràññee nañu ko mais damay wax ci leneen loo xamante ne bi itam sa particularité la tey mu nekk kaaraange parce que kaaraange bu ñu ko waxee mooy da am téere bu ñu woowee Kanzul Maal xaw ma téere la xaw ma baatin la waaye da nga ciy faj ay aajo Kanzul Maal bu ñu ci ñëwee loolu lan la. waaw Kanzul Maal léeg-léeg damay wax ne toujours sa mbokk yi bu ñu fi ñëwee dama ko laaj. Mhm. parce que ñi koy laaj dafa bëri. Mhm. muy def ci biti moom jéggi na dayoo. Mhm. képp na képp ku ko am da nga xam ne am nga kaaraange. ku la liggéeyee dana dee te loo xam dana toog te it li muy def daal. ki ko yore dong moom moo ko mën a xam am na lu bari loo xam ne ni mënuñ ko mënuñ ko publicité ci média bi di ko wax. alors euh, Kenzoul Maal dama dégg euh, ñi ngay wax ne dafay dox ci xëccoo ñu bari tey dañu leen a xatal ci moo xam bërëbu liggéeyukaay la moo xam itam ñuy xëccoo benn mbir mënuñ cee jot Kenzoul Maal gën cee gaaw sëriñ bi. waaw Kenzoul Maal dafa nekk euh, gàllaaj boo xam ne nii gàllaaju ndono la. Hmm. gàllaaju ndono la. te gàllaaj la goo xam ne nii it gàllaaju xëccoo la. soo demee nekkee ci benn barab ñu di la fa puus bëgg la faa jëlee. Mm-hmm. ki la fa bëgg a jëlee comme moom moo la fa bëgg a jëlee rek xamal ne moom moo fay jël moo fay baxee ko. ci mu mën di doon boo amee Kanzul Maal looy mën di xëccoo da nga koy am. da nga koy Kanzul Maal moom déggoo li ma la wax Kanzul Maal baat bi sax moom nga xamul ci lan lay tekki ci wolof. dëgg la waaye Kanzul Maal dafa kéemaane. Mm-hmm. ki ko am moom xam na li mu yore. Mm-hmm. waaye ki ko amul nag moom amagul gàllaaj amagul kaaraange. d'accord alors euh, est-ce que kii euh, nga xam ne waay politique la wala itam mu bëgg mbooloo di ko xëccoo wala muy dem ci benn concours di ko xëccoo ay ba tey Kanzul Maal bi daf ciy def. Kanzul Maal daal nit ki su ko yoree. Mhm. nu mu mel ren. Mhm. bu dewee da danga mel ni ko ëpp. Kanzul Maal day yëkkati waaye du wàccee. d'accord gisaguma hit ku ko amee hit. ne nii laa meloon ren melu mën na lay daaw. ñu lay raw waaw kenn du la raw. d'accord waaw. kenn du la raw mi ngi noonu Kunzul Maal nga xamante ne bi euh, euh, waaye itam am na beneen aspect boo xamante ne bi dafa particulier ci Kunzul Maal bi mooy kenn du la mën a liggéey boo ko yoree lu la neex defal ku la liggéeyee dee allahu akbar képp ku la liggéeyee dee nit nag am na droit nag mhm. bañ a liggéeye kenn waaye ku la liggéeyee nag moom dee moom kooku moom affaire am la self ndax moom moo la yóbbu woon waaw moo la yóbbu woon ci sëriñ di la liggéeyee même xattaa sax bu fekkee comme tey yow dangay ngay da nga nekk borom mbooloo mhm. di di di nit ku nekk soo ko yoree xam nga nit ñi boo yoree mbooloo nit ñi di ñëw ci ñëw kenn ku nekk ak ni muy dikkee ci yow. Mm-hmm. am na koo xam ne ni dafay ñëw pour gàllankoor la. Mm-hmm. du man ci yow dara boo yoree kansul maal surtout nga yore mbooloo mbooloo moo mën a amee boo yoree kansul nit ñi nuñ mën a dikkee ci yow ku mën a ñëw ci yow saaru nit bu nekk mooy ñëw ci yow ak kenn ku ci nekk ak jubluwaayam ci yow waaye ku la bëgg gàllankoor mu mënu laa gàllankoor. d' accord mi ngi noonu muy ngi bu wér te wóor waaye sëñ euh, Abdoulaye Thiam itam euh, xam nañu la ak ay jëflante ci wàllu euh, këyit wàllu visa la wàllu séjour la wala nationalité la nga koy liggéey ci ñaata fan. waaw ñun kooku duñ àppal borom. ah bon du duñ la àppal moom. wàllu kayit moom ci wàllu ñaan duñ àppal borom. sëriñ bi am na sëriñ yoo xam ne dañuy àpp de wala. waaw man moom du ma àppal duma ma àppale. ndax ci yàlla ngay ñaan. waaw man duma ma àppal kenn. Mhm. waaye li ma mën a xam te ñi nga xam ne nii ñoom yàlla dimbale na leen bu ñuy def examen ci wàllu bac. Mhm. ñu indi fi seeni doom. bu ñuy def examen ci wàllu BFEM ñu indi fi seeni doom mhm. wala ñuy def ay concours ci wàllu douane ñu ñëwal fi seeni bopp wala ñu yebal fi ay nit ñoom xam nañ lan la ñuy def ci wàllu concours waaw man soo ma wooyee sax bëgg maa natt na ma sama soxla bii ñaata fan lay am man dama lay daal di kuppi ndax damay xam ne yow dangaa bëgg soppi Ablaye caam ak yàlla te Ablaye Thiam benn jaamu yàlla boo xam ne nii dafay ñaan suñu borom gëm naa ne nag su ma ñaanee yàlla yàlla dana ma may mhm. ndax yàlla ci boppam moo ñu wax ci alquran ne ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen amul fenn fu yàlla waxee ci alquran ne su ngeen ma ñaanee du ma leen may ndax yow mii ñaan nag ndax xam nga ni ngay ñaane ak xam nga ban waxtu nga war a jug pour ñaan ñaan gi nangu ak wan yoon nga war a jaar pour ñaan nit ki mu nangu. ak ban secret nit ki. Hmm? ak ban secret. waaw ah, am na am na am na ci solo léegi euh, itam waaye euh, li am solo ba am solo mooy. Euh, dama lay wax tuuti ci wàllu ñaan noonu rek comme li ngay wax. Mm-hmm. alquran dafa am juróom-ñetti aay yoo xam ne nii kun fa yakun la kun fa yakun la jeexee. Mhm. juróom-ñetti aay yooyu dafa am lu mu composé doo ci ñaanal nit mu ko taxaajoom fa jiwul. d'accord euh, bu ñu waxee aussi euh, tey ci wàllu rab am na ñu bëri ñoo xamante ne bii dañu bëgg jëkkër mënuñoo mënaguñoo am jëkkër dañu yàgg ci célibataire boo xam itam ay góor lañ wala jigéen Cheikh Abdoulaye euh, ndax it ki am jëkkër ki bëgg am jëkkër moom itam mën na ñëw ci Cheikh Abdoulaye te du yàgg. waaw kooku moom yàlla mi ngi ñu ci defal tawfiix mm-hmm. xam nga nit dafa am lu nekk ci ñaar luy nekk ci nit mm-hmm. nit benn dana yore faru rab benn bi it nit danañ ko dëj xam nga lu ñuy wax dëj mm-hmm. maanaam dott am na nit ñoo xam ne nii dañ leen dëj ba képp koo xam ne nii ñëw na wax ak ñoom maanaam suñ demee ba am yaakaar yaakaar ji dafay tas loolu faru rab dana koy def léegi nag ñun su ñëwee li ñuy njëkk a def ci nit ki mooy def ci moom listixaar ba xam faru rab la wala liggéey lañ ko def. Mhm. su boobaa nag ñun. Mhm. danañ danañ ko mën a danañ mën a. Mhm. danañ mën a xam ban yoon ci li ñuy jaar pour dimbale ko pour mu am jëkkër. mais il faut nga listixaar ko foog ñu listixaar ko. te it boo demee ci alquran. am na fi benn aaya boo xam ne nii. soo ko bindee ci bisu altine nga jox ko am war a am jëkkër ak ay tegtal yu bëree bëree bëri bëri sax am na ñu bëri ñoo xam ne nii macha allah foogoon nañ ne duñ mësu am jëkkër yàlla may na leen jëkkër waaye loolu yëpp nag dañ koy sante yàlla. ci bésu altine. waaw. bësu altine ci ngay sang ki war a am jëkkër. ñaari bis yi lay topp bisu altine wala bisu alxames maanaam ci ci lañ koy liggéey. waaye sang gi moom beneen affaire la. beneen la secret la booy dëxëñ. mais daal euh, Cheikh Abdoulaye li wette wóor mooy euh, bëri na ay résultat yoo xamante ne bi yaa ngi koy def. ci di ñaanal wàllu rab nag danaa la ci wax tuuti. Mhm. dëkk sëriñ. waaw wala Sénégal. dëgg la de koo wax mu ne may faj rab. waaye nag ñu ci bëri xamuñu rab te mënuñoo faj rab te lañuy wax rab du rab. déedéet xam nga montage. waaw film boo xam ne nii dañ koo monté. Mm-hmm. di ko di ko film di ko wane ak duñ benn waaw. la bëgg wax foofu rab yi nga xam ne nii dafay daane nit ñetti fan yu nekk. Uh-huh. nit ki kiris mu daanu. Mm-hmm. kuy faj rab te ñu xam ne man ngaa faj rab kooku ngay faj dafa am benn rab boo xam ne nii kooku du rab kooku àndaale la. Mhm. mooy ki nga xam ne nii dafay tëdd di gént di am ko luy jaxasoo ak moom. Mhm. kooku dafa am àndaale. Mhm. àndaale boobu mooy tax nit ki su fekkee jigéen la. su demee ba biiram taxaw ba mu war a taxaw àndaale boobu moo ko yëngal ba mu xëpp. buñ ko waxee dinga nga di nga jot xaalis di ko di ko jot kooku alquran. am na ci secret. pour rab bi bàyyi ko. ndax léegi-léegi sax ñu ne la booy jàng suuratu yaasin lu bari wala ngay jàng ay ayatul kursi yu kër goo koy jàng ñaareel rab du fa nekk hmm. kon nga war a xam ne kon am na lu nekk ci alquran loo xam ne nii ki nga ki loolu arrivé bu ko defee rab yi dana ko bàyyi waaye amaan nag uh-huh. faj rab man sama papa da daan faj rab waaye ci mujj ak dundam hmm. bàyyi na faj rab ndax rab dafa mën a gudd fan te dafay topp sa njaboot topp sa sët waaw te ñi ma gis fii ñiy wax ne dañuy fab jarab naan damaa yore ay jinne kenn yorewu ci jinne te lii man maa la ko wax. yore jinne yombul. dañoo yorewut benn jinne sax jinne moom ku ko yore moom danañ xam ne yore nga jinne waaye yorewu yorewuñ jinne yorewuñ dara dara yorewuñ ko. mais Cheikh Abdoulaye yow di nga fa jarab. kuy daanu kuy daanu crise da nga koy faj man déedéet man am na rab yoo xam ne nii du ma ko laal d'accord loolu leer na bëgg naa itam sëriñ bu naan am na loo xam ne duma ko faj du ma ko laal ndax li taxoon sama waajur ba ko mhm. moo tax man du ma ko def jërëjëfati loolu itam leer na parce que bëgg naa ci euh, sëriñ boo xamante ne bii am na yoo xam ne du ay domaine am mais itam euh, ci sa domaine laay ñëw directement muy wàllu ngóora Sénégal tey bàkke nañ la euh, ne bokk nga ci ñi ko ñi ko gën mën fii ci Sénégal muy wàllu kàttan néew kàttan am na ci ñu néew kàttan nag dafa bëri ay façon am na ci ñoo xamante ne bii seen dara doxatul ñenn ñi dañoo néewle naam dañuy bëgg lu ngir yokk rek ci kàttan ci alxuraan rek la ñu la xamee waaye kàttan ñaare dañu naan alxuraanul karim yeneen ay sunguf ak reen a koy faj loolu noo ko gisee yow. doo dégg mukk. Mhm. ku ne la El Hadj Abdoulaye faj na ma ci wàllu kàttan sunguf la ma jox wala ren la ma jox. Ah. doo ko dégg mukk. alxuraan jii laay bind su fekkee ku nekk bitim réew la li may bind moo koy xoojal boppam lii lii ngay gis nii du ma wane lépp waaye dana am lu ma la wan tuuti rek loo xam ne. lii ngay lii lii ngay gis nii bokk na ci li nga xam ne tey. Mhm. soo ko su ma la ko xoojaloon léegi ci benn bitéel ba ni mu war a yem ba yem ci nga yendu ci naan ba ngoon jot bu soob yàlla danga nga mel noo mustamel. Ah. waaw da mel noo mustamel. waaw dafa am ay borom nag dafa am loo xam ne nii secret la. d'accord secret nag dañ koy denc. ndax boo déggee ñu ne la baatin mooy lu nëbbu. Mhm. soo demee ba wesaare ko ci àddina bi nag. tasaare ko ñëpp lu nëbbu nag bu demee ba feeñ nag nëbbootul. d'accord kon ñuy wax ni sunguf ak reen kese ñoom moo mën a faj kàttan tey jëree si Cheikh Abdoulaye def leen di défier parce que alxuraanul karim. alxuraan ci la lépp nekk. Mhm. ki sa bopp bi di métti. Mhm. nga teg sa loxo jàng alxuraan mu sedd. kanaa mhm. loolu kay dara gënu ko garaaw. ki sa biir di métti. nga bind jox ko mu naan mu sedd. dëgg la loolu kay euh, lu ko gën a gaaw alxuraan mooy lépp. Cheikh Abdoulaye ki sa xel naqadi mhm. nga bind alquran jox ko mu naan wallaahi xel mi ubbeeku wax dëgg yàlla kay su ne la mën nañu ba fe su ne la alquran am na secret boo xam ne ni bu ci nekk boo xam ne ni dana yokk kàttanal nit mhm. wax dëgg yàlla boo ko gëmatut xaw ma lan ngay gëm alors mi ngi noonu moom ay waxam ci alxuraan lay commencé di jeexe ci alxuraan waaye itam bu ñu euh, fàtte ne jàngalekatu alxuraan la di borom baatin euh, bu ñu ñëwee ci euh, mbir moo xam ne nee nga ma sax yow doo ci yàgg ak nit muy wàllu noob ndax affaire xale nga ko jàppee pourtant am na ñuy sëy dem ba seen boroom kër nobatu leen am na ci ñoo xamante ni bi aussi dañuy bëgg nekk ak nit ki ngir mu takk leen te takk bi day yeex yéex Cheikh Abdoulaye loolu itam ndax gaaw na ci lool. loolu damay wax ne loolu fawukaayu xale la. wàllu noob. waaw wàllu noob. noob moom mooy li gën a yomb ci li nga xam ne nii man moom laay liggéey. kon doo ci yàgg. te maa ngi koy liggéey ci Faatihatul Kitab. doo ci yàgg de kon faatihatul kitaab. Hmm. ci lay liggéey nopp waaw su ma demee ba xam ne kii dafa dëgër bopp man liggéey ko ci ayatu kursi yu du të. waaw am na ñoo xamante ne bi dañ leen a bàyyi de cest dañu nekk ak nit ki euh, rela seen jabar ñoo xëy fasel euh, bàyyi de bàyyi leen dem am na ñoo xamante ne bi waaw dafa am loo xam ne nii ku ko xamut xamoo ko ku ko mënut mënoo ko waaw léeg-léeg nit ñëw fii wax ma yu demee noonu na ma sama jabar nee na dee moo ko gënal dellusiwaat. waaw ndax bëgg nga mu dellusiwaat mu ne ma waaw ma ne ko boo ma fayee dana dellusiwaat bu la neexee nag nga xaaj ko tegal genn wàll fii bu dellusee nga jox ma. Ah, soo ma joxul nag dana delluwaat. Cheikh Abdoulaye am na relation yu compliqué de yoo xamante ne bii indiwaat ko du yomb de. sëñ bi waaw xol mooy yàqu rek waaye bu defaroo rek defaru na yàlla na ñu yàlla may ñi mën a defar xol. ci alxuraanul karim ngay defal ci alxuraanul karim lu relation bi critique critique boo seet see loolu du dara loolu du dara boole la rek nit ki moom bu la bëggee rek bëgg na la bu la bañee it mën nga koo wëlbati ba mu bëgg la d'accord ma jàll ci beneen moo ñu ne booy bañ mhm. na bañ ndànk mhm. waaw waaye nangam munta am mhm. ngay wax ne mënoo ko am wala mënuma ko def amee ubbeeku rek lépp lu mu bëgg dana ko am waaye ubbeeku nag li koy li ko li nga xam ne ni mooy saxal ubbeeku mooy nga am kaaraange fexe ba tëj ci làmmiñ ak bët. Hmm. waaw. kon koy defal bayre danga koy defalaale kaaraange. boo amul kaaraange kay du dem kaaraange mooy lépp nit ki bu tëyee rek am lépp waaye boo tëwul boo tëwul moom amugoo dara. d' accord euh, li ñuy wax pippi au lit c'est-à-dire tuur ndox ci kaw lal loolu itam euh, jàngoro la boo xamante ne bii Cheikh Abdoulaye am na ci ay saafara yu particulier c'est-à-dire loolu nag lu jafee faj la nee nañ waaw parce que loolu boo ko xoolee hmm. saaru moo àndaale mu moo nit koo xam ne nii hmm. dafa dafay dafay jaxasoo nit guddi di sëy ak moom te bu gis bu te bu yeewoo du gis dara ñoo bokk yem rab la daal ndax nit ki su boobaa moom itam hmm. day mel ni ma nga ca wanag wa di ko def te fekk mi ngi ci kawlal bi da koy def ba pare rek xam ne mi ngi ci kawlal d'accord loolu kon am na lu ko koy defloo. traitement bi day yàgg nag loolu déedéet du yàgg. traitement bi du yàgg. am na ñoo xam ne nii su ma leen joxee butéel yi ma leen war a jox. bala hmm. ñu ko naanee bala moo jeex na ma arrêté na. da gis ne danañ ko def par 15 jours mujj gi ñuy dem par un mois mujj gi dootoo ko dootuñ ko gisati. alors Cheikh Abdoulaye fi may jeexalee mooy euh, Sénégal itam fi mu nekk nii ni nga ko gisee ak wàllu sëriñ yi nu ñuy gën di bëree di proliféré wu ñenn ñi euh, itam euh, ñu bëri sax ni dañu ñu dañ leen di dóor ñu bëri ne dañ leen di nax naka nga gisee wàllu euh, yéen métier bi ngeen nekk fii nii ci senegal ak euh, fi mu nekk nii nga xamante ne bi coow li bëri na wax ji bëri ci internet bi ku ci nekk di génn di wax mais nga gis sax ñoo xamante ne bi itam dañuy génn di classe sëriñ si et pourtant alxuraanul karim ngeen jàng alxuraan mën na lu comme ni nga ko waxee yenn journaliste yi génn classe ne sëriñ si nangam ak nangam noo gisee loolu. waaw xam nga léegi jamono bi. Hmm. secteur boo dem rek. Hmm. da nga fa gis ñoo xam ne nii. ci yoon lañ tegu danga nga fa gis koo xam ne nii teguwul ci yoon waaw. Mm-hmm. benn muy ci lii ñu nga xam ne nii ñun ci lañ nekk. Mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen man mii li may xëy di woo di ma réclamer ci ay nit yoo xam ne nii dañoo mel ni comme El Hadj Abdoulaye Thiam. Mm-hmm. wax comme li El Hadj Abdoulaye Thiam di wax. di def comme li muy def ba pare jaleet bi ku nag boole ci leneen. xam nga nit ki mënulaa laa yaakaar. woo la téléphone jot la. nga wax ak moom sa soxla. mu yónnee la alalam nga coupé téléphone am sa téléphone mënatulaa jot la nga ko waroon a jox yónnee woo ko yàq nga dereb Alaaji Abdoulaye Thiam yàq nga dereb mbooleem sëriñ boo xam ne nii mi ngi def wàllu ñaan. wallaahi dëgg te it nag da ngay boole sa bopp ci kër goo xam ne nii benn nga boole sa bopp ci tijaaniya mhm. wala nga bokk ci bopp ci ya mhm. wala nga boole sa bopp ci qaadiriya yaa ngi yàq der yi ñooña mhm. te ñooña seen tariqa ba ñu gëm wala seen seen wasila bi ñuy gëm ñooña seet jomb nañ loola. moo tax kon yenn journalistes yi am fitu di def di wax lu leen neex parce que temps yi moom am na ci yenn journalistes yoo xam ne nee nañ sëriñ sëpp ay dóorkat la ñu dee te ci alxuraanul karim nag ngeen di teg seen ay mbir. waa même ñoom journalistes yooyu sax. Mm. boo ci xoolee am na ci ñoo xam ne nii it. Mm. comme li ñuy wax sëriñ si loolu rek moo nekk ci ñoom. ay dóorkat lañu. waaw dafa am sëriñ si sëriñ si li ñuy wax ne dóorkat lañ. Hmm. bari na fi sëriñ yoo xam ne ni ay dóorkat lañ man xam naa ci dara. ndax man def naa intervention ci diggante sëriñ ak benn waay bu muy jëflante. d'accord te du benn du ñaari yoon. Hmm? du benn di ñaari yoon ci affaire yi jaaru waaw ma ne ko nit ki su fekkee da nga koo liggéeyloo da nga da laa liggéeyloo yëkkati alalam jox ko yónnee ko mu la liggéeyal wala bu la nga jël ko. d'accord ma ne ko lii ngay def nag soo ko bawut da nga ci xam problème man nag duma la wax may kan waaye dinaa la laahi bit ak dina nasiha ndax ñi may woo di ma réclamer ak yow dafa bëri xamoo ma nag xaw ma la du ma la wax it maay kan ndax numéro bi ma ko doon wooyee mënu koo gis waaye lii wax naa ko. nga wax ko ab sëriñ. ay fan rek lañ ci teg rek mu am problème waaw te loolu dafa bari nit ki mënutuñ mënul laa yaakaar mënul laa woo bi nga bi mu lay jox alalam jamono bu mu lay woo jot la mu jox la alalam ba pare mënatulaa jot. kon Cheikh Abdoulaye daal moom ku ko woo jot ko ba pare. ku mu déggoo li ma la wax man sama téléphone bii. yow sax bi nga ci wootee man nga jot. Hmm. doo dégg mukk nga wootee ñu laan. secré secrétaire secrétaire rek ay yu ma la yooyu yëpp affaire yi caaxaan la la. waaw comme yëf yi moom ci yow lay mujj man képp ku ma woo man lay jot ku may dugalal xaalis sama tur la koy dugal man làqatuuma. d'accord naka nga gisee ñi leen di classe kon ñu ne ay dóorkat ngeen yéen waaw su boobaa yow fexeel yow nañ la sédd ci gaalu xaj waaye fexeel ba sa loxo bi bu mu ci dugg. ndeysaan dëgg la dégg naa dëgg. waaw. dëgg naa dëgg euh, Cheikh Abdoulaye ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax euh, di la wax nag ni fi mu nekk nii lan ngay tàggatoo ko mbokk internet du Setsima TV. waaw man li may wax rek maa ngi koy wax ci réew mi. Mm-hmm. di ko jëmale ci président mag Sall. Mm-hmm. mu bàyyi xel seetaan naa benn vidéo am moom ak sii di Lamine ñas yal na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. mu di ko nettali xisatu Moussa ak na bi nga xamee ni nii Moussa na wax nañ ko na ko am na xale bu war a judd ci sa réew mi pour folli sa nguur mhm. mu yaakaar ne ñi wax ko na ko bala nga cee mën a mucc comme ci at mii lañ la wax beral góor ñi fële wàcc jigéen ñi fii mhm. léegi nag nga def benn contrôle boo xam ne nii ci biir réew mi bépp góor gu judd rek maanaam ñi faatu la mhm. képp ko képp ku judd tey góor rek ñu rey la ba yàlla nammee ba yàlla yàlla li mu namm te nar koo def kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara waaye moom itam na xam ne nag mënut muus ko waane ba xam tay te man daa xam na xam ne mi ngi waaj a jeex. maanaam moom ci njeextal ci njeextalu ci neextalul nguur ci la nekk. président Macky Sall. maa la ko wax. bi mooy dernier mandat am. ci njeextalul nguur ci la nekk duut yow ci yow laa ko soo ko waxee wax naa ko ci ay interview yu bëri te leer laa ko teg. nit ñi nag dangay bàyyi ba mu paase ñu ne addi waxoon na ko ba mu bàyyi ko loolu waaw gis nga na ab na mu defoon ak Ablaye Wade Ablaye Wade mustoon a foog ne Macky sàll mii maanaam moo koy. moo koy doon moo koy doon. Macky Sall it musta yaakaar ne moom mii bëggoon na ko waaye musta yaakaaroon ne moom mii nguur gii ñu ko jox nii lu ko bett la mu xam mu war a xam ne kon yàlla rek mooy jox nguur ka ko so te place nag boo ci xasee ba toog te da nga folleeku xamal ne ko moo ko dese. maam hmm? fi mu toll nii daal ci guddi la nekk na xam ne fajar jot na léegi tey bët set. te yaa ngi seen ay remplaçant am nii di ñëw. loolu koy loolu kay moom beeba mu xam ko moom day wàcc. jërëjëfati euh, Junior euh, loolu moo nekkoon euh, seen émission kéemtaan ak Cheikh Abdoulaye Thiam kilifa gu màgg gi nga xamante ne bi kàngam la moom itam di jàngalekatu alxuraan ñu fekk ko fii ci ci Pikine di leen jaajëfal di leen jox dig daje incha allah ci beneen jataay ak beneen kàngam Junior Gueye moo nekkoon ci xarala gi. Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et set rigueur Setsima TV xibaar yu wér te